président dafa ne moom bu jógee ci nguur gi day dëkk day dëkk Sénégal parce que dañoo gis euh, ancien président yu bari bi ñu paree ci nguur bi dañ génn euh, bon Abdou Diouf Ablaye Wade ñu ngi dem ñu ngi ñëwaat surtout Ablaye Wade euh, bari na lu mu résider fii alors lan mooy doon ëllëgu président de la République Macky Sall bu nekkatul ci bopp nguur gi bu dee yéen ay ñoñam ñoñam yéen a toog ndax da ngeen di dévier PSE bi ndax da ngeen di wut seen yoonu bopp war a euh, da ngeen koy def genre genre mentor parce que xaw ma kan moo toog fii mais nee na am na ko ne président de la République mën na jëriñ Sénégal euh, lu raw lu mu ko jëriñ ci biir mandaam ndax euh, parcours bi mu am bu ñu demee ba ca cëppaandaw ba le Sénégal aura encore besoin de lui bu ñu bu ñu lii daloon Thabo Mbeki ak Nelson Mandela Euh, par exemple boo ñëwee Afrique du Sud Nelson Mandela ngay njëkk a bëgg a gis avant ngay gis Thabo Mbeki nan nga gisee ëllëgu président Macky Sall après le coup. xaw ma kan moo la wax loolu. mais xaw ma kan moo la ko wax dama xamul kan moo ko mais ki la ki la wax loolu. li mu wax loolu noonu la war a demee président moi je suis de ceux qui pensent warul sax dem feneen. dafa war a toog ci réew mi. dafa war a non façon du dafa war a toog ci réew d'abord c'est ça le Sénégal. dafa war a toog ci ci ci ci ci réew mi euh, expérience bi mu am expertise bi mu am mais surtout làpp biir bi mu làpp biir euh, ku mënti jël réew mi que ce soit quelqu'un de sa mouvance ce que je souhaite que mu doon quelqu'un boo xam ne même bokkul ci mouvance am bëgguma loolu am mais dafa doon koo xam ne dañ ko war a wormaal dafa doon koo xam ne dañ ko war a téye ndax li mu defal Sénégal yow yaa ngi fàttaliku léegi discours 3 juillet bi mais xoolal balaa ñu egg ci discours 3 juillet bi tout ce qui s'est passé au Sénégal c'est un homme dont le Sénégal doit être fier c'est un homme que le Sénégal doit aduler et le Sénégal l'adule euh, les mots ne sont pas de de trop fii la war a nekk ak nit ñi ku am soxla ku am xalaat ku bëgg a def dara dem waxtaan ak moom maintenant man gisuma beneen solution bu mën a defar Sénégal lu dul plan Sénégal plan Sénégal émergent nag plan wu Macky te xam naa ne bu ñu mettre en œuvre plan wu Sénégal émergent ak jàppalu président Macky Sall avec ou sans la présidence de la République di doxee nii ça va ça